guddi ñeenteel ga ku ca julli ñeenti rakka bu ci ne faatiya ak kaafiroon na ñetti yoon dees na ko bindal tuyaabay jaamuk junniy nit te dees na ko jéggal bàkkaaram yépp bala moo jóge fa mu doon jullee